Bienvenue sur Salam Vision. Thank alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadana li hada wa ma kunna allah alhamdulilahi rabbil yàlla ci dellu si bi dellu ci plateau bi di moomate di santaat yàlla bu baax ngir yàlla am na ko fekkee bis bi tey talu ko wallaahi yàlla bu baax ngir yàlla am na koo xam ne fekkee na ko waaye yàlla nattoo na ko loo xam ne tey ji tabaarakallaahu fekkoon na ko fi mm-hmm. waaye na ko loo xam ne talu ko am fi may wax yow wérul. wallaahi am na koo fi may wax ak mm-hmm. mu ngi ci soxla bu taw a faju mm-hmm. am na koo xam nag sunu boroom jël na ko yii yëpp dafa daje. Mm-hmm. waaye kon bu nu yàlla suturaale ñu ñaan yàlla fekkee yàlla mel ñu fekkee naa rabbil alamin waaye nag di santaat yàlla ci plateau bi am na gan palaato bi tey am na gan koo xam ni man mboolem ñu ma mës a dalal ki ma dalal sama bopp la ma dalal tey sama bopp la su ma nee sama bopp nag ngi ñuy seetaan xam nañ li tax ma ni ki ma daal tey sama bopp la. d'accord tabaarakallaahu beneen bi ci des it mooy ñu santaat yàlla ci dalal bi ñu ko dalal du suñu bopp kese kese kese waaye nag muy kenn koo xam ne jàmbaar la ci diine ji. Mhm. ñu xam ko ñeneen ñi ñu ko gën a xam mën ko seede waaye nag tabaarakallaahu muy ku jàmbaar ci xam-xam macha allahu taala allahuma laa dur bu ko defee alhamdulilah rabbil alamin ñu war a àndandoo ak moom ci ponk boo xam ni. Mhm. wax dëgg yàlla. mën naa ne àdduna yi mboolem pays boo xam ne ñu ngi waxtaanee ñu ngi islam concerné na leen. am nañ problème bi ñuy bëgg waxtaanee tey. wallaahi. moo dee xool sax réew yi gën a sonn ci nattu yeneen yàlla teg yépp di leen ko teg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. mooy est-ce li mu leen bàyyil. Mm-hmm. téye nañ ko ni ñu ko war a téye maanaam li ñu doonu ndax jëfe nañ ko wal nañ koy jëfee. Mm-hmm. mu am problème wal ni ko yàlla indee lañ ko jëfeewul wala ñoo ci dolli lu ci bokkul. kon ñu ngi dalal imaam alxaaji ñang tabaarakallaahu di ko bàyyi mu nuyu ak mbooloom waaye imaam balaa ñu lay bàyyi nga nuyoo dañ lay laaj benn question rek moom la ñuy jiital mhm. mooy dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fi lislaam toll suñu noonu ci lislaam dëgg dëgg dëgg lan mooy problème bi dëgg dëgg ci noonu bi. incha Uh-huh. naa euh, temu conférence la uh-huh. thème bu yaatu bu bu laaj ay gëstu yu yaatu laaj uh-huh. temps bu yaatu waaye xam naa liñ fi am ci temps rek ñu jim ci tënk euh, suñu kemtalaay kàttan ala kulli xaal euh, oustaz dafa am benn gëstukat bu wax wax bu am solo mu wax ni al islaamu mazlumun min abnaihi aksar mimma huwa mazlumun min aadaihi mu ni lislaam li ko dal du ay noonam moo ko teg mhm. waaye lislaam li ko dal ca mu metti lool ay doomu boppam ñoo ko teg mhm. Mohammed Abda dafa jóge Égypte euh, dem euh, euh, Paris def fa ay jamono ku ne xam ne Mohammed Abda borom xam-xam bu toll noonu mhm. mu def fa ab diir daal di wax wax bu siiw boo xam Serigne Cheikh moom la ñuy faral di dégg mu koy nettali mu ni dëgg-dëgg bi may jóge fii ci Acharq ci Moyen-Orient ay jullit laa fi bàyyi mais bàyyi ma fi lislaam wax bu xóot la nag. nee na ma dem Europe. mais bu ma ñëwee fekk ma fiy jullit mais fekk naa fi lislaam. est que ñu ngi bàyyi xel bu baax. waaw maa ngi dem Europe fekk fa lislaam mais fekk ma fay jullit. waaye fii ma jógee nag ci Moyen-Orient moom ñëpp ay jullit lan parce que may gisatuma fi gisuma fi lislaam. kon chattaana maa baynal islaam. wal muslimuun mhm. moo tax bu ñuy jugé lislaam bu ñu ko jugé ci comportement jullit ñi mhm. boo ko ci comportement jullit ñi rek da ngay trompé mhm. euh, mën naa ci joxe anecdote yu bari ci benn soxna boo xam ne dinaa koy faral di nett nettali euh, euh, benn waay arabe la dafa dem ci réewu Togol yi taxawal fa benn entreprise am secrétaire am tubaab la du jullit mu dem a dem a dem ba mu yàgg mu bëgg a takk soxna si waxtaan ak moom soxna si ni ko waaw man de d'accord na vraiment pour ñu sëy mu dem waxtaan ak ay waajuram mais ay waajuram ni ko yow suñu sañoon booy takk nga takk jullit kon yow donte ni góoru jullit am na droit takk jigéen bu dul jigéenu jullit mu ne ko waaye ñun li ñu gënal mooy nga waxtaan ak soxna si ngir mu tuub waa ji ñëw proposé soxna si pour mu tuub soxna si ni ko man mënu maa dugg ci diine ju ma xamul soo bëggee ma tuub da nga may bàyyi may ma congé deux ans ma def ay recherche ci seen diine ji ba xam ban diine la mm. waa ji may naa la ko jox ko ay moyens soxna si dem di gëstu en tant que koo xam ni intellectuel di gëstu ci wàllu diine lislaam di gëstu di gëstu di gëstu ba xam diine ci mhm. waaye bi mu dellu si waatee surprise bu rëy rëy moo am Cheikh Abdallah mhm. waaw soxna si dafa dellu si waat waa ji ni ko alhamdulilah léegi nag loo gis mu ni ko waa sant yàlla bu baax gëstu naa diine ji xam naa lan mooy lislaam waaye mhm. malheureusement mënumaa seeg yow waa ji jaax na ni ko ah lu xew mbaa jàmm mun ko bi ma gëstoo seen diine ji ba xam ko tuub naa dugg ci diine lislaam hmm. waaye man li ma gis nga koy jëf ak fi nga toll ci wàllu diine hmm. dëgg dëgg dëgg mënatuma sëy yow ngir xeeb bu mu ko xeeb ci wàllu lislaam est-ce que jullit jafe na man gis naa man personnel fii nii rek ci Parcelles Assainies ci benn mm. école xaalimatu saxaari bi ma doon jàngale ma gis ay xale yoo xam ñu ngi sant Abdallah mm. may laaj maa ñii sant Abdallah fu mu jógee ñu may nettali histoire xale ñu ne ma ñii seen seen yaay sénégalais la mais seen mm. papa américain la mais seen papa bi muy takk seen yaay du woon jullit sax mu ñëw sëy ak soxna si soxna si waxtaan ak moom ci lislaam ba mu tuub mais dem nan ba waa mën a tudd dund ak soxna si ci biir kër gi ndax ni soxna si di négliger lislaam bañ divorcé ñoom ñaar pour wax la ni kon l'islam fa mu toll ak fi julli ñu toll sore na mu mel ne li li li oustaz Pape laaj nag maanaam euh, cheikh bi wallahi dañu toll ci jamono boo xam ni mm-hmm. jamono bu bari coow la mm-hmm. yéen a ngi dégg temps yëpp actualité ci Sénégal tëj nañ diw ndax dafa wax ci tariqa nangam mm-hmm. tëj nañ diw mais lan mooy problème bi ki tëj ak ki ñu tëj yëpp bi ñuy jugé def jugement bi ñoo àndandoo julli tisbaar maanaam xoolal ki nga ki doon porter plainte ak ki mu porter plainte bi tisbaar ci biir tribunal bi ñuy layoo. ñoom ñaar ñoom ñëpp ñu àndandoo taxaw. julleendoo ci benn sàpp. est-ce que kon mooy cause bi exactement. lan mooy problème bi lan mooy problème bi. dafa nañu lever séance bi ñoom ñëpp ñu dem julli ci. avocat bi doon juge bi doon jugé dafa dem taxaw ci sàppe ba ñu taxawee ba ñu liqaame lañ leen wax benn baat rek lañ wax mooy allahu akbaru allahu akbar ashhadu an laa ilaha illallah. moo fi nekk kenn woowul keneen laa ilaha illa allah la ñëpp wax kan lañ ci teg ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mhm. moom rek lañ ci teg tudduñu keneen mhm, mhm, laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñoom ñépp loolu lañ wax ba ñu taxawit kii jubluwul fenn kii jublu soo ñoom ñépp kaaba ga lañ jublu wallaay ndeysaan dëgg la de ñoom mhm. ñëpp ñu àndandoo jublu kaaba gi uh-huh. ñoo rukkoo àndoo ñoo sujjudandoo ñoo sëlmalandoo mhm. ba ñuy sëlmalee xam nga lan moo ci gën a doy waar uh-huh. ku sëlmal da ngay gis si ne jox ne asalaamaaleykum yow sama mbokk <laughs> ni ko asalaamaaleykum wa rahmatullah yow naa nga am jàmm moo sa Serigne Moustapha Sy euh, jiitu Moustapha Sy day wax ni uh-huh. euh, lis yàlla subhaanahu wa taala xoolul jaam bi ci biir jàkka ji yitteelu ko. Hmm. mais yàlla mi ngi xool jaam bi fan la jógee dem jàkka ji ak bu jógee jàkka ji fa mu jëm. Hmm. fan nga jógee dem jàkka. ak boo jógee jàkk foo jëm foofu la yàlla subhaanahu wa taala di xool jàmm kon asalaamaaleykum yi ci jàkka yi bu doon dëgg la wallaay li ñuy gis ci mbedd mi du fi am kon daal dañuy wax loo xam ne yaquluna fi afwaahihim maa laysa fi quluub léegi lan mooy problème bi dañuy wax ci thème boo xam ne hmm. héritage suñu héritage bi ñu am hmm. ñun l'islam mooy suñu ndono hmm. mais ndono bii ñu am damay wax ni ci ñaari loxo la tàmb am na ci loxo boo xam ne dafa jàppee ndonali lu sacré ba mënu koo jariñoo mooy ñi nga xam dañoo fanatique. tey tey par exemple day xool koo xam ne ci Sénégal ni mu tëddee euh, waaw man man murid laa sama sëriñ mooy sëriñ Touba sëriñ Touba mooy lislaam moo fi def lislaam maanaam li baax ci réew mi yëpp moom la point lijjantiwuma keneen nga gis ci wet gi ku naa man Seydi mooy sama sëriñ moom mooy ki def nangam mooy ki def nangam mooy ki def nangam moom mooy dugal nit ñi nangam ku nekk di bàkk sa mbër maanaam loolu doy nañu ci ndono li mm. alors que kii wax loolu boo ko laajoon kan mooy sëriñ Touba xaqiqatan xamu ko du la ko wax mm. boo ko laajee kenn mooy Seydi Hadji Malick xamu ko. taalibe Seydi Hadji Malick la. Mm-hmm. bu bu bu bu alxames jotee mu dem di jàng Innal Manaay la dina jàng Rabbun Tabaarak mais boo ko laajee kenn mooy Seydi Hadji Malick xamu ko. xamu ko mm-hmm. Mm-hmm. keneen ki tam mi ngi jàng xasida saa yu xëy boo ko kan mooy Serigne Touba xamu ko. wallaay te mu ngi doguma la ñi yelwaan sax dafa am ñuy jàng. jàng murit ak ñi jàng jàng ci jàng c'est-à-dire ku nekk kullu hizbin bimaa ladayhim farihun c'est-à-dire lan moo lay naqari nag ah. mooy ndono lu riche li nga xam ne tey mm-hmm. doon nañ ko mm-hmm. jëlee ko ci mag ñooñu mm-hmm. ca war koo jariñoo ca mënuñu koo jariñoo mooy problème bi war koo jariñoo ci mënuñu koo jariñoo ndax wax naa la benn kuréel bi nga xam ne loolu doy na leen ci ca wallaahi ndono li ëpp na loolu ëpp na ko lool lool ci lu ñuy jël rek di ko barkeeloo. Mhm. bi ma ciy def xutba bi paase jox naa ci ay exemple yu bëri. Mhm. Mhm. ma ni tey suñ système éducatif bi. buñ ci dellu si waatoon. fan lañ ko roote. fan la wax ji fan lañ ko rootee yaa imaam parce que fan wax ji nekk. fan fan lañ ko rootee. tubaab yi ñoo ñu ko tegal di am ñun amuñu école école sénégalaise. kon ñun moomaguñ suñu bopp ba suñu bopp li ñuy jàng nii yépp programme la boo xam ni tubaab bi ñoo ñu ko andil tegal ñu ko barki démboo njaay lañ fen di PAM tey ñuy jàng am nekk ci système bi xam nañ li may wax mm-hmm. programme bi mujjee ñëw bi mujjee ñëw paam la ñuy coow PAM PAM lan moo tax parce que am na benn bailleur bu ñëw financé la mu bëgg ñu jàngale ko loolu la ñuy jàngale est-ce que li ñuy jàngale dëppoo naa suñuy aada est que dëppoo naa suñu cosaan est-ce que dëppoo naa suñu diine déedéet loolu problème la te jamono jooju pourtant mag ñooñu ma lay wax mm-hmm. ki xëy ni mi ngi jàng xasida mhm. est que xam na xasida li muy jàng lu muy wax loolu tamit problème la de mhm. te sonn na ca lool sonn ci nab nab nab nab boo ko laajee mu ne da koy barkeeloo mais wallaahi ki bind xasida bi bind ko pour nga barkeeloo mm, ëpp na ko daf koo bind ngir oriente la am lu mu la bëgg a jàngal mm-hmm. bu fekkoon na xasida yooyu ñiy jàngale moo tax daawa bi dafa am problème ñiy wax ci lislaam lañ war a xoolaat parce que ki wax ci lislaam mm-hmm. bu fekkoon da yee na nit ñi xamal leen parce que kuy nelaw kenn du ko waar dañ koy yee mm-hmm. Sénégal nelaw yi daf fee bari dama fekk kuy nelaw nga koy waar mooy rey sa temps boo fekkee kuy nelaw ko waar da nga koy pour ñu yee leen kon xàmme wuñ kuy nelaw ak kuñ war a ak kuñ a waar a ngi nelaw est-ce que boo fekkee kuy nelaw nag bul ko waar yee ko ndax kii jàng xasida tey joxe mm-hmm. naa ci misaal te dama koy andiwaat mm-hmm. sëñ bi est-ce que jàng xasida bi ñu wax najo najo qadaa il xaaj najo qadaa il xaaj très bien man de jàng naa ko mm-hmm. damay wax nii boo demee suñu école yi dañuy jël di jàngale ni ñu tuddee éducation civique ak éducation morale. Ah, lan moo tax dañoo bëgg xale yi am benn comportement bu baax ci biir société. Mm, mm, mm, mais référence yi fan lañ ko jëlee. tugal ci tugal jamono jooju jëlal na ju xadaayil xaaj Cheikh Ahmadou Bamba lan la ci jàngale. ci teggiin ci ndaw nan lañ ko war a formé bu juddoo. nan lañ ko war a jàngale ci teggin ndaka nga war a toogee kilifa ndaka nga war a waxee kilifa ndaka nga war a doxee ndaka nga war a toog ak borom xam-xam ndaka nga war a jànge ndaka nga war a respecté borom borom cër maanaam borom xam-xam loolu yëpp yëpp yëpp yëpp da ko toll ci buntu buntu liggéey fan nga war a jaar nan nga war a sellale buñ la joxee liggéey naka nga ko war a fonke yaa ma'shara tullaabi minni yasma'u nasihatan lakum shiqaan tadfa'u nasihatan lakum li wajhi llahi tanbiihi kullu gaafilin wa saahi tariqatu ladabi rahmatu lsagiri mhm. kal abi wal ummi wa tawqiri lkabiri wa jaali mislika ka nafsika siwali wajhi xaaliqin ala larshi stawa mm. di la jàngal ma ni téere ba bu ñu ko traduiroon andi ko jox ko xale yi est ce que yàqute gi am ci mbedd déedéet léegi xale yi bu ñuy wax seen wax si saaga lañ ko àggale mm-hmm. kuy wax wax ji ci saaga la koy àggale mhm. kun jàngaloon nahju qadaa'il xaaj kun jàngaloon qantaratul murid bu Seydil Xaaji Maalik radiyallaahu anhu oh, mais doo am comportement boobu ci benn ça c'est vrai mhm. le mais référence yooyu ay marabu lañ mhm. xam marabu baatu tubaab la rek bu tubaab bi di naxe ay marabu lañ nag mooy ki nga xam ne moom intérêt personnel moo ko ñor bu ñëwee feexee ba xool nu mu lay moo tax ndaw ñi yàqute googu am ndaka lañu mën a dellu siwaat loolu mooy mm. héritage boobu mm. ñu bañ a nekk loo xam dañu koy jël rek sëñ bi di ko barkeelloo mm. di jàng xasida yoo xam ne xamuñu lu muy firi di di organiser gàmm di organiser màggal di organiser ay tante yoo xam ne bu ñu fa dajee cérémonie officielle kese la cérémonie officielle mooy président de la république ñu lay sant di la gërëm ci ñu defal président ni sëriñ bi ñaanal réew mi réew mi am jàmm ñu ñaan ba déwén ay rek mm-hmm. ay milliards. Mm-hmm. yàq fay milliards. Mm-hmm. amul benn discours boo xam ne tey. dañ ko mëne ci cérémonie officielle yi joxe ko boo xam te ni kii ñëw ci programme bi bu fa jógee dina changer comportement dina toqantal taalibe bi. dina ko toqantal yee ko mu xam ko muy teg tànkam. léegi benn kuréel la ngi noonu ci ñëwaat deuxième kuréel bi nag moo gën a dangereux encore. mooy beneen kuréel bi nga xam ni. dañoo jàpp ni Sénégal dara baaxu Hmm. amuñu histoire dëgg la de wallaahi. nit ku baax mosu fee jaar loolu yëpp dañ ko war a sànni. moo juróom histoire bi ci ci ci procès bi. moo di coow li lépp. sëriñ yi duñ dara sëriñ xamuñu dara sëriñ maanaam dañoo war a recommencer waat reconstruire ci ay nit. te ñuy wax loolu. Mm-hmm. wallaahi ñoo gën a réere histoire Sénégal xamuñu dara te te ñooñu imaam dogguma la bala ngaa bala ngaa wéyal. Mm-hmm. bare na ci ñoo xam ne. seen i mm-hmm. wéyjur ak seen i maam ci loolu lañ leen toqantal. waaw euh, sëñ bi dama la bëgg a wax benn affaire maanaam waykatu arab bi dafa wax ni wa kam allamtuhu nazma alqawaafi wa lamma qaala qaafiyatan hajaani wallaay ndeysaan ki waral ki waral coow li est-ce que xam nga ne imam Moustapha Gueye moo ko jàngal waaw foofu laay bëgg a ñëw maanaam wa kam allamtuhu nazma alqawaafi wa lamma qaala qaafiyatan hajaani waykatu arab bi nee na waa ji dafa ñëw bëgg a way ma koy jàngal li ñuy defee shi'r di ko jàngal li ñuy defee way di ko jàngal ba mu mën a way nee na première way ba mu way man la ci xas ndeysaan <laughs> waaw yar sa kuy ba mu màgg mu xëy mbëkk la yar kuy ba la gis ma bëgg a foofu mooy mm-hmm. réew mi lu fi baax mag ñee ko fi def mm-hmm. wax wax a ngi nii jërëjëf yaay maam mm-hmm. maanaam amul exception réew mi lu fi baax ñu koy joxoñ di ko tuddee l'islam mais kan moo ko fi def quatre-vingt-dix-sept pour cent musulmans waaw dañu yeewu Sénégal xëy di nelaw yeewu rek ñu ni Sénégal 97 pour cent musulman <laughs> bi. déedéet. liggéey bu métti la de. am na ñaata bakkan ñoo ci des. am na lu fi jaar. Ah, mm, mm. Ah. pour 97 pour cent musulman. wallaay lu tax réew yi wër Afrique sowu jant bi wala réew yi ci Afrique yépp tubaab bi colonisé woon. Mm. boo fa demee tubaab ba moo fa des ba léegi. loolu tax Sénégal mucc. ceddo gi ba xawoon na fee bari de. a am. wallaay mag ñi dañu xeex. wallaay pour samp fi lislaam. wallaay tey damay wax ni jàkk joo fi gis mu am ans laajal ko ko fi samp taalibe diw la. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yow mi judd en plus de 30 ans ki la tudd taalibe diw la. ça waaw. yow mi juddu Sénégal la Sénégal ah. yow mi fi juddu am plus de trente ans ak koo mënti doon. ki la juddu taal ki la tudd taal bi de moo tax waa ji tontoon tontu bu doy waar. Euh, benn waxkat ci ñooñu bu doon wax naan. mais ñiy def yëpp ay bidaal ni ñu takk see ay bidaal mu ah sëñ bi kon. defal daal defal daal tuuti yow mii ko ca jàkka ji. te <laughs> ki la takk wax dëgg yàlla ci nii la la woon. ni la woon say waajur de ba oh, oh. maanaam kon lu ñu fiy joxal di ko tuddee lislaam. maanaam ci ci xóotal am juddoom koo càmbaraat. war nañ koo càmbaraat càmbaraat. <laughs> ah eh, mu mel ni nag. loolu nga xamante ni tey. dëgg la def nañ ko. te <laughs> ah. ñan ñooy mag ñi. waaw dëgg-dëgg. Mm-hmm. ñoom ñooy mag ñi. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax itam bari na ñoo xam ne tey boo leen laajee rek dañuy yaakaar ni l'islam moom démb la fi commencé. dix-huitième mm-hmm. siècle la l'islam dugg ci Sénégal. déedéet. dañuy yaakaar ne l'islam bari ki démb la fi ñëw. mais dafay sax ren de mbokk. l'islam dafa yàgg Afrique waaye l'islam dafa yàgg Sénégal. est-ce que xam nga ne l'islam bi muy dugg Afrique boobu naar yi sax xamuñu li l'islam. déedéet. waaw. est-ce que yonent bi bi muy wax. ñoom Ousmane. Mhm. boobu lislaam ñi duggagul ci lislaam daanaka matuñu deux cent personnes deux cent. ñu mhm. ñu topp yonent bi. yonent bi ni maa ngi leen di digal ngeen gàddaay dem dëkk bu ñuy wax Xabasha. Mhm, ndax am na fa benn buur boo xam ni commande la du tooñ ca kenn du tooñ ca li mu yëlif. buur bu ñuy wax Najaasi. dem leen foofu ngeen làqatu fa. waa Xabasha mooy fan mooy Éthiopie. Éthiopie mooy Éthiopie di. jooju lislaam mali pays arabe yi sax xamuñu ne lislaam lislaam mi ngi soo commencé Màkka kese la yem. Mm. demagul sax Médine. Mm. Mm. lislaam àggagul sax Médine laa demagul fa yonent bi boobu demagul Médine. Médine am na ay quelques yu commencé découvrir lislaam bi ci dugg mais lislaam amagul Médina te yonent bi toxoogul Médina. lislaam a ngi ci biir Afrique ñuy protéger lislaam Najaasi yi di dalal ay jullit di leen protéger waa Màkka di yónnee délégation pour récupérer leen pour faat leen. najaas yi dalal jullit ñooñu protéger leen ba ni yonent bi gàddaay jóge Màkka dem Medinatul Munawwar lislaam ñu ngi koy xam najaas yi moom tuub na dugg ci lislaam gannaaw ba mu génnee àdduna yonent bi jullee na ko mm-hmm. sallallahu kon lislaam yàgg na fi mm-hmm. lislaam yàgg ci senegal damay commencé tuuti ci ji du du ma wax sax ci fa mu jaar ba dugg mm-hmm. mais wax naa fi sànq xarakatu Cheikh Souleymane Ba dañ ci dellu siwaat lan la def ci lislaam fan la taxawle kan mooy Thierno Souleymane Ba dëgg-dëgg kooku bi muy dugg ci lislaam hmm. bi muy bi muy liggéey lislaam fan la jànge mi ngi jàngee ci Pire université bu Pire Ceerno Souleymane Ba mhm. hmm. mi ngi jàngee Pire hmm. ci ci kanamu qaadi eh, eh, Omar Fall moo ko jàngal ah. xam nga daara yi Pire dafa nekkoon daara ju doy waar macha allah daara jooju ay yu bari daara jooju bi muy taxaw boobu lislaam ñi ko xam bariwul ñoo ñooñu ñoo jàngal Ceerno Souleymane mu jugeen Fuuta Mm-hmm. ànd ak ay ay ay moromam yu bari Thierno ah, ah, ah, Amir Abdul Qadir kan ca la bokkoon ak ñu baree baree bari ñu ñëw jàng si xam lan mooy lislaam am xam-xam delluwaat taxaw lu ñu tuddee les états euh, euh, état almaami bu Fuuta. Mm-hmm. ñu ngi ko taxaw ci ay vers dix dix-septième siècle. Mm-hmm. mille sept cent. mille sept cent dix-huitième siècle. dix-huitième siècle lañ taxawal euh, état boobu. tey damay wax ni gis nga Oustaz Pape. bu ñu delluwaatoon jàngal suñu ndaw ñu loolu billaahi damay am lu ma naqari suñu suñu suñu politiciens yi bu ñu taxawee ama suñu politiciens yi dañoo tardé bokk ñoo réew mi fi fi ñu toll réew mi jamono raw leen listan am sama benn mbokk bu mu nekk Arabie Saoudite <laughs> docteur Yara ñu ngi koy di ko ziar dama man suñu leader politique yi dama naan est ce que ñoom bu ñu ñëwee Arabie Saoudite ba ñibbiwaat dinañ nelaw ma ko yow Arabie Saoudite ngay wax Mm-hmm. ñoom ñu ngi dem Europe di ñëw chaque jour di mm-hmm. gis ci àdduna toll ak ñoom si ñili fi ñu toll wallaahi mm-hmm. normalement président bu jógee Afrique dem Europe boo ñëwee war a toone law déedéet ndax boo xoolee fi àdduna bi toll ak sa askan toll. ñoom toll ci wàllu civilisation. fi àdduna bi toll ci avancement ak ak yow fi sa askan toll boo ñëwee waratoo nelaw. wallaahi wallaahi. waaye nag waratoo nelaw waaye nag yaa imaam maa la sax parce que man dama wax ne réew mi dafa jot nit ñi tiit. imaam parce wax nga ko léegi léegi réew moo xam ñu ko war a doon ëllëg te ñu yaakaar leen. tey fi seen jamono toll seen jikko sax tiitaange la parce que wax nga ko léegi léegi. xaqiqatan. Mhm. léegi nag euh, loolu muy tolluwaay boo xam ne tey suñu politicien bu ñu wax lan la lay wax Machiavelli. Machiavelli. Machiavelli lañ lay wax. Uh-huh. ñoom ñëpp mooy seen sëriñ. Uh-huh. ci moom la ñuy dellu ay machiavéliste la ñoom ñëpp foofu la ñuy dellu mooy seen i référence balaa ñoo mën a wax jël ay référence Karl Marx lañ lay wax. Uh-huh. mooy seen i référence Voltaire lañ lay wax mooy seen référence Montesquieu lañ lay wax mooy seen i référence ay ñooñu ñooñu di la wax ay ay libéralisme ak ay ay ay capitalisme. jamono jooju ñu lay wax. billaahi lépp lu ñu lay jàngal ci wàllu science politique boo ñëwoon ci lislaam fekk fii loo xamante ni nii moo dëpp gën a dëppoo suñu diine dëppoo suñu aada ba pare jàngal leen loo xamante ni nii danaan mën a danaan mën a sauver seenu askan mm-hmm. tey Thierno Souleymane Ba état bi mu taxawaloon ba tey tubaab bi taxawul état bu ko gën a déedéet déedéet wallaahi ndax sëñ Pape xam nga loolu moo ci gën a yéene mm-hmm. booy wax démocratie ndax démocratie man naa weesu mm-hmm. koo xam ne day waaj a génn àdduna ni état bii nga xamante ni maa ko jiite maa ngi nii di dem ci xare wóor ma ba xam dinaa ñëwaat waaye waaye bu ma génnee àdduna du sama doom moo may doon na ngeen moytu al al al al wiraasa an nasabi. Mm. nas nasabiya. ndono lu jege. ndono loo xamante da ngeen koy teg ni kii sama doom la déedéet bu leen xool ci sama askan ngeen tànn ci. Mm-hmm. bu leen xool ci sama waaso. Mm-hmm. xool leen koo xam ni. wóor na ni leen doy na leen ci ragal yàlla. doy na leen ci xam-xam na te doy na leen ci njub. Mm-hmm. Thierno Souleymane Ba loolu la teg. est-ce que ma ne état yi ñu dynastie yi ñu wax tey. Mm-hmm. kon kii moom dépassé woon na ko ca mille ca dix-huitième siècle. waaw doomam du ko dond. Mm-hmm. askanam du ko dond. Mm-hmm. bu mu demee ba génn àdduna Amir Abdel Qadir kan dond ko. doxal même état bi cent trente quatre xalifa nekk nañ ci dawlatul imaamiya état boobu taxaw na lu ëpp cent trente neuf plus d'un siècle état boobu taxaw na ko mais état bu maandu boo xamante ni kenn du fa jaay jaam kenn du fa tooñ lépp luy état bu maandu dem na fa Thierno Souleymane Ba loolu la liggéey ma ne damay poser question tey suñu jàngkat yi ndax dégg nga kenn kuy tudd turam. déedéet. même waaraatekat yi. loolu lay expliqué léegi ah. waaraatekat li a garaaw faral di cité Thierno Souleymane Ba. mais waaraatekat yi doo leen dégg ñu tudd ko. kan la ñuy tudd dañuy ñëw ba ci dernière génération yi. mais est ce xam nga ne Cheikh Omar Fouti yi. li jihaadam bi di mag di rëy rëy rëy rëy bàyyam ci état bii la bokkoon état allemand bi ñoo ko formé. Mm-hmm. ba Thierno euh, euh, Alxaaji Omar Fouti judd ci état boobu ñu yar ko ci mu mel ni mu mel tey ba am li mu am. te Cheikh Omar Fouti moom moo préparé terrain bi pour Serigne Ba Cheikh Ahmadou Bamba ak Seydil Hadji Malick. Mm-hmm. moo leen prédire ñoom ñëpp moo leen prédire mais ñun dañuy tëb sa état yooyu yëpp. dañuy tëb état bu. Euh, Thierno Souleymane Baal te ci état bu euh, Cheikh Omar Fouti léeg-léeg sax dañu wax ci état bu Maba Diakhou Ba lim liggéey ci lislaam Mouhamadul Amin Dramé. est ce que xaj na walaay ca boor yi. Mouhamadul Amin Dramé kër dama ci waxtaan ba pare. ay booy universitaire yàlla xam na ko mooy si benn xutba. waaw ma ñu ñu ñu ñu karma ni ma imaam may nga ñu ay buntu gëstu. wallaahi ñii nga wax mosuñu leen a xam mais bis ki tey nañ def ay recherche gëstu ñooñu ñooy ñaar. alhamdulilah mën leen gëstu leen Mouhamadul Amin Dramé. ci ahlulaay. wallaahi gis nga kooku mhm. moo gënoon a jaaxal tubaab yi. Mm-hmm. Mm-hmm. dañuy wax Lat Joor. Mm-hmm. ñuy wax Lat Joor jamono ja côté ceddo rek lañ gëstu. njàmbaaru Lat Joor boo gëstu woon njàmbaaru Mouhamadul Amin Dramé du too ko tudd. kooku dafa jaaxaloon tubaab yi ba bu ñu daan nommé capitaine dañ daan jëli capitaine ba euh, ba ba France indi ko ngir mu jàkkaarloog Mouhamadul Amin Dramé. mu laaj ko ay laaj. mu laaj ko ay laaj ñu jàmmaarloo ci ay xare yu bari. mais Mouhamadul Amin Darame chaque jour bu daan éliminé capitaine bi lay njëkk a éliminé capitaine tubaab bi lay njëkk a éliminé a jàkkaarloo armée bi. est-ce que. Mm-hmm. éliminé capitaine yu bari Lati Jody ay capitaine Toumani ñoom ñëpp ay capitaine lañ yoo xam ne ku ci nekk successivement bu ñëwee tubaab bi teg la nga jàkkaarloo Mouhamadul Amin Darame rey na la. tas sa sa sa say soldat sa armée nga dem ak sa defet ñu andiwaat keneen xam nga fan la mujjee ak moom. Mm-hmm. tubaab dem nañ ba mënuluñ ko dara mu continuer ci lislaam liggéey loo xam ne dañoo mujjee jaax ne xam nga nañu mujjee def ni kii bu ñu ko bëggee éliminer mm-hmm. il faut ñu def coalition mm-hmm. coalition mooy nañ dem seeti buuru ceddo yi ndax leen suñu coalition ñoom dem ci Cheikhou Amadou moom mi jiite jullit ñi ci beneen parti bi ñu waxtaan ak moom am lu ñu ko dikk boole ko buuru ceddoy am lu ñu leen dig ak tubaab bi ñoom ñett ñoom ñëpp ñu coalisé pour jàkkaarloog armée Thierno euh, Mouhamadou Amine Dramé noonu la ñu jàkkaarloog moom coalition bu rëy boobu. pour mën a am ci moom ndam. Mhm. bi ñu ko blessé mu daw dugg Mali ànd ak doomam ñu jàpp doomam ju am 18 ans rey ko rey bu ñaaw. Mhm. jël bopp bi pour andi ko tubaab yi. ci la ñu rey Mouhamadul Amine Dramé jël bopp bi andil ko capitaine tubaab bi nga xam ne moo jiite woon fii ci di Faidherbe bu Faidherbe bu kër dafa kontaan kontaan ba daanaka dañ doon jubilé feet ngir rey nañ Mouhamadul Amine Dramé kooku lu nekk liggéeyal na ko lislaam jamono jooju ci ci ci dix-huitième siècle laa lay wax boobu jamono jooju Cheikh Omar Fouti aseegul ah, Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba ganeegul àdduna Seydi Hadji Malick ganeegul àdduna ñooñu ñu ngi liggéey liggéey bu rëy boobu ci lislaam est-ce que ñu ngi jàng histoire yooyu mm-hmm. est-ce que suñu ndono loolu ñu ngi koy gëstu di ko wax wallaahi bari na koy wax man damay gis waxtaankat yi ñi nga xam ne ñu ngi xëpp suuf ci li da ngay yéemu ci yàlla seen ñàkk jom mm-hmm. waaw ñàkk jom mënul passé mm-hmm. nga taxaw naan di xë euh, maanaam magu Sénégal duñu dara wala defuñu fi dara loolu ñàkk jom la man nag imaam euh, dëgguma loolu nag euh, oustaz bu ma xaw a jaaxal la maanaam tubaab yooyu nga xam ne loolu nañ suñu maam yi sonal boo xamante ni te mënu ko xayma ñu tudd leen ay pont Faidherbe ak beneen tubaab bu ñu tuddee fii quand Leclerc bi nga xam ne bokk na si tubaab yi gën a solo Serigne Touba. Mm-hmm. man loolu loolu affaire bu ma xaw a jaaxal la. mais loolu xam nga loolu mooy ba tey dañu amagul indépendance. Mm-hmm. parce que réew mi bu amul indépendance. mais suñu président yi war nañu mm-hmm. ki nga xam ne tey lu la naqar ci àdduna moo la ko teg. lu yàqu ci si si sam réew yàqu ci sa askan moo la ko teg. yow nga koy honoré. di ko tudde ay réew yi gën a mag ci réew mi place yi gën a symbolique ci dëkk bi ñu leen koy tudde loolu mooy ba léegi dëgg dëgg dëkk waaw dafa gën a mooy mooy mooy moom sa bopp rek yaa imaam yaa ngi ci fu am solo mm-hmm. mooy moom bëggoo sa bopp rek mooy moom bëggoo sa bopp ah, eh, eh, bismillah Cheikh Omar uh-huh. eh, cheikh bi war nañ leen war nañu xamle kan mooy Cheikh Omar Fouti wallaahi mm-hmm. ndax naan la mm-hmm. c'est wallaay Cheikh Omar booy wax ci moom sax da ngay tiit. Oh, wallaay wallaay wallaay dem naa Mali benn waay li ma Sénégal nga ma xam nga Cheikh Omar ma ne ko waaw mu taxawaat. Mhm. parce que gis nga boo demee Mali boo tuddee si turu Cheikh Omar nit ñi dañuy rëf rëfi mhm. xam nañ kan mooy Cheikh Omar mhm. demal ba Tombouctou nord Mali. xam nañ kan mooy Cheikh Omar. demal Niger. xam nañ kan mooy Cheikh Omar demal Nigéria. demal Gambie. Ah, ah. ñëwul Sénégal. kan mooy Cheikh Omar Fouti gis nga Cheikh Omar Fouti Taal. Mm. Mm. wali yi la boo xam ni. Mm. daf wilaayaam wilaaya kas bi yàlla wilaaya wax bi yàlla. wallaahi Mhm. dafa am ñoo xam seen wilaaya jaamu yàlla moo leen ko jox ndax boo mhm. yàggee jaamu yàlla nekk wali mhm. waaw boo jaamu yàlla ci sellal ko rek nekk wali de ah. ndax inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun alladina amanu wa kaanu yattaquun ku la gën a ragal yàlla ëpp la wilaaya yàllaa ko wax ci alquran prasiraj maa wax ne xasrul wilayati fi taqwa saadatuna wa jaa fi suratil anfali za alami ku la gën a ragal yàlla ëpp la wilaaya ah, ah. moo tax soo ragalee yàlla yàlla xamal la lu mu xamalul ñeneen ñi wattaqullah wa yuallimukumullah am na ñoo xam ne seen jàng du jël jàngalewuñ ko ci téere yàllaa mm-hmm. leen ko xamal mm-hmm. loolu ay alquran la mm-hmm. ragalal yàlla sa kem ragal yàlla sa kem xam-xam noonu lay toll wallaay wattaqullaaha yuallimukumullaah noo ragale yàlla sa xam-xam noonu foofu lay toll am na ñoo xam seen ragal yàlla moo leen may wilaaye bañ am wilaaye kasbiya mais am na ñoo xam ne sonn nuñ ci sax dañoo judd rek nekk wali Cheikh Amadou Fouti Tall dafa judd rek nekk wali wilaaye wahbiya kenn mënu ci dara yàllaa koy tànnal boppam qul inna al fadla bi yadillahi yutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim di ko ko doon firi dani man loolu rek ma jaaxal Mm-hmm. waaw daairatu fadliya moo tax gars yi déggul ngi wax ci jawahirul maani ah, ah, ah. koo xam ne fero ji bëgg a firi waxu Seydina Cheikh mu sotti ci daairatu fadliya mm-hmm. parce que yàlla am na foo xam ne jugé wu fa doomu aadama mm-hmm. yàlla mooy xool ngëneelam defal ko ku ko neex te du ci rendre compte kenn du ci laa kenn xalaat moo tax Cheikh Omar Fouti yi ci gaa yooyu la bokk dinaa la ñamal tuuti ci ci ci ci ci ci kan mooy Cheikh Omar gis nga Euh, bi mu mokkal alquran juróom-ñetti at la <laughs> mokkal ci jamono jooju. ci jamono jooju. mokkal alquran mokkal bu yéeme. Mm-hmm. Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu ci karaamaam du ma ci ñëw ndax ay karaamaam ci bi muy nekk ndaw. Mm-hmm. nga xam ne ñetti at la ak ñaata qul huwallahu ahad tëdd. Mm-hmm. ñu ni ñetti junni qul huwallahu at ñetti at li ma lay wax bi ko bind ci téere Mauritanie la du Sénégalais. ñetti at. mu daan tari ñetti junni xul walla ahad balaa muy tëdd mm-hmm. yeneen karaama bëgguma sax dugg ci karaama Cheikh mm-hmm. Omar Fouti mm-hmm. mais pour mooy kan bi mu fi jógee pour aji màkk est-ce xam nga ne mooy première personne bi masa bi ah, wax nga dëgg de caaj bu siiw bi mu fi jógee di aji màkk ajam googu rek doy na ay euh, duruus fa ay baat ak la ca xew yëpp wallaay la ca xew wallaay jaar na fu ñuy wax Nigéria def na fa fukki at ak foofu mi ngi jiit woon armée boo xam ne Mouhamad Dello moom mooy waajur Ousmane Daan Fodé bi nga xamante ni nii taxriir na fukki dawlaak juróom ca Nigéria boo demee Nigéria xam ngeen ni dëkku lislaam bu mag a a mag a la yi ñuy tudd ci àdduna bi ci ay référence ñu bari xamuñu ko te fukki état fukki état juróom ci état Nigéria yooyu Mouhamed Bello ak doomam Ousmane Daan Fodé ñoo ko taxawal ci jihaad xam nga ne Cheikh Omar Fouti moo nekkoon capitaine pendant quinze ans moo tax Mouhamad benn Bello may ko doomam boobu di Mariam. Mm. doomam aaw Cheikh Omar Fouti foofu lañ ko ko may mm. ndax daf koo xool gis wilaaya bi ci moom mu ni ko yow ñaar moo ma naan nga toog fii jiite sama armee ma topp sa ginnaaw ñuy liggéeyal lislaam bu ma génnee àdduna nga jullee ma mm. fu la neex nga dem soo ko mënulee ma bàyyi fi jihaad bi topp la foo dem ma topp la ndax yow fu ma dee yaa may jullee hmm. Cheikh Omar daal di bàyyi lépp ànd ak moom jiite jihaad bi mu may ko doomam Mariam ñu nekk fu fukki at ak juróom ji eh, mu tax taxari fa fukki dawla ak juróom Cheikh Omar Fouti hmm. liggéey boobu la liggéey Nigéria hmm. kere ba muy aji màkk moo nettali boppam ci Rimah nee na bi ma àggee Misra Égypte nee na bi ñu demee ba gis ma dañu xool ni waaye nit ku ñuul ku mel nii moom ndax ndekk yàlla sàkk na ko daal di woo ulamaul azhar kàngami azhar yépp la ñu woo Mm-hmm. nee na ñuy commencé ma ñëw di ma laaj ku nekk sa domaine ba nga bëgg a laaj mm-hmm. ñii di ma laaj moo koy wax de nee na ñii di ma laaj ci mutashabihul quran mm-hmm. mbir yi secret alquran mais ma leen di tontu. ñii di ma laaj ci balaaxa ma leen di tontu ñii di ma laaj ci ulum ma leen di tontu ñii ma laaj ci ulumu shar'iyya ma leen di tontu nee na ñu di ma laaj suba ba ngoon ku nekk domaine ba nga jàng ca nga may laaj ma lay tontu suba ba ngoon nee naar yëpp jaaxle bëgg maa téye pour ma toog Égypte xoolal al azhar ndax yaa ngi xalaat imaginer al azhar ak ni mu toll. wallaahi ku ñuul ko fa dem jommal leen. wallaahi yombul de naar. mu jege fa dem aji màkka def na ñetti at. ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam ñetti at yoo xam ne Cheikh Omar lenn dong laa doon def. Mhm. saa yu ma xëyee dinaa ñëw jàkkaarloog rawdu yonent bi toog ak nga xamante ni moo nekkoon xalifa Cheikh Ahmed di ko toppatoo di ko liggéeyal di jàng ci moom pendant ñetti at ba Mouhamadul Ghali dañ koy defal kashfu di ko jox euh, euh, euh, di ko jox di ko jox ijaaza ma ngi ko ko joxee ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu def fa ñetti at wallaay wallaay ba mu fa jógee jaar Palestine mhm. nee na bi mu ñëwee Palestine lanu ko joxoon lépp lépp ca Makka ak Medina da koo dajale séddale ko fuqaraa yi nee na daanaka def fa semaine nit ñi gër gur wër ko daal koy daggal kër pour mu dëkk fa nee na ba muy génn guddi la fa génn ndax bëggul ñu téye ko ndax mission nekkul woon foofu mu génn Palestine jaar fa mu jaar Niger ba jër Mori Nord Mali Tombouctou la fa liggéey mhm. ñoo ko soo ko ñëw ci senegal mais pour tënk histoire am kooku loolu la liggéey ci Sénégal bi mu ñëwee ma ñetti objectif yoo xam ne atteindre na ko mhm. ndax Cheikh Omar mhm. mooy benn góor yàlla gu ma gis mu am ñetti mission. Mhm. ñetti mission yu ànd ak ñetti objectif. ban ban. Mhm. ñetti mission yi mooy. Mhm. jàngale doy na mission. ci lislaam Cheikh Omar xalimaam mosul taqalikoo ci loxoom. foo ko fekk mi ngi xalimaam ku mu doon àndal la ngay njëkk a mujjee mokkal mooy saxiixu Buxaari muslim laa laajal jàngkat yi lan mooy saxiixul Buxaari muslim mosu boo mosaa nekk taalibi Cheikh Omar da ngay mokkal saxiixul Buxaari da ngay mokkal saxiixu muslim da ngay mokkal alquran. moo tax Serigne nee na. Euh, gars yi dañoo mujjee ñëw ni ko gis nga euh, euh, Cheikh Omar sa jihaad bi il nga arrêté ko ndax ndaw yi ci nekk ñëpp a mokkal alquran ca ndaw lu mokkal al alquran ñu koy rey ci toolu xare ëpp naa def Cheikh Omar ni ndaw lu defar boppam ba mel na mu war a mel fas yéene jëppal boppam boromam ku ko ko bëgg a tere man Cheikh Omar du ma ko tere ndeysaan ku mu daan àndal xalima mosul tàqali ko ak loxoom foofu la ñu bari rawee ni ci jàngale rek wala mag ñu Omar mel mm-hmm. benn mm-hmm. koo xamante ni sa jàngale Mhm. sa mission la. Mhm. ñaareel bi mooy kurusam gis ngeen photo bi sax. waaw du tàqalikoo moom du tàqalikoo moom zikr. dañuy wax ne armée Cheikh Omar bu daan jàll dawi yu zikr bi. Mhm. riiru zikr bi moo lay xamal Cheikh Omar mi ngi traversé. foo toll yaa ngi dégg baatu laa ilaha illallah. zikr. muy ñaareelu mission ci yar tarbiyatu zikr wal xalwa. ñetteelu mission bi nag mooy jihaad. foo ko fekk mi ngi ak jaaseem. waa ki bëgg a boole jaasi ji. bëgg koo booleeg tardé zikr bëgg koo booleeg ak xalima ji ca benn warul tardé ah. Cheikh Omar ñetti mission yi la yor te benn tardé wu ci est-ce que ñaata téere la taalif hmm. soixante-dix téere Cheikh Omar Fouti taalif na ko ci domaine xam-xam bu nekk da xalaat ban jot la Cheikh Omar amoon ba mën a taalif benn téere muy muy muy muy mission bi nga xam ni ñetti objectif yi réussir na ko bi ci njëkk mooy dafi Cheikh Omar di ñëw ceddo la fi fekkoon de mbokk yi hmm. l'islam ak boo nekkee jullit dangay am ay xàmb ci côté ah. boo nekkee jullit da ah. maanaam l'islam donc moom amul woon amu fi woon hmm. Cheikh Omar ni il faut mu séparer ceddo gi ak l'islam ji hmm. moo taxoon buuru ceddo yi ni ko bi dong de dafa amoon problème ak tubaab bi am problème ak buuru ceddo yi hmm. ni mu daan xeexee contre tubaab bi noonu la doon xeexee contre buuru ceddo yi pour séparer l'islam ak ceddo gi réussir na mission boobu ñaareel bi mooy ibaadu xataru nasaara Mm-hmm. mooy nan lay def ba tubaab bi li mu fi bëgg a samp du fi sampe ci réew mi mm-hmm. mu am problème ak tubaab bi jàkkaarloo moom mm-hmm. fexe na ba loolu mu réussir ko ñetteel bi mooy mu taxaw dawla islaam ya ba réew mi nekk réew moo xam ne Afrique sowu jant yépp man a nekk euh, euh, euh, gox boo xam ne dañuy dund lislaam Pape sëñ Pape ci ci tënk mooy Cheikh Omar Fouti mais est que xam nañ ko déedéet tey dañuy jël ay référence ci ñeneen même suñu borom xam-xam yi nga xam ne da jàpp nañu réew mi dara am fi bari ki dem maa ci déglu ku mag ci ñoom muy waxtaan mi ngi naan waaw Ibnul Jawzi di joxe exemple Ibnul Jawzi moom euh, euh, mi ngi doon wax ci pour bëgg xam waliyu nan la mel ak kudul waliyu da nga koy natt ci euh, ci ni muy toppee yàlla ndax lu nit man yàlla du wali maanaam di joxe exemple ma ne ndeysaan kii bu jàngoon histoire réew mi balaa ma dem ci Ibnul Jawzi ci Seydi Hadji Malick dafa <laughs> mais mais Cheikh Omar Foutiyou Tall moom lu ñu ci jàngal ci ci ci école mm-hmm. mooy finalité ba di ñu wax ne Cheikh Oumar. ma nga làqu ca Bandiaga daal. fële dafa disparu mystérieusement mystérieusement ci man mystérieusement. mystérieusement waay. man wax ne toujours gis nga bu ñu daw sax ni Cheikh Omar nan ko rey. na na na martyr. Mm-hmm. mais Omar ibn Khattab dafa martyr. foofu aussi imam sew sew la. ba xam dañ koo rey ba xam dafa. sew bari na ci ñii dafa martyr mais bu ci man tam gis nga man dama jàpp ni. mais bu martyroon fa la daraja ji gën a kawe. ndax jullit. daraja ji gën a kawe ci jullit mooy darajatu shahaada mooy martyr di jihaad ba martyr mooy daraja bi gën a kawe moo tax rabbana innana سمعنا مناديا ينادي للايمان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئات وتوفنا مع الابرار والله واكفرتنا مع الشاهدين يلا نينا نيتو يالا يي كي ñaan da ngay ñaan yalla dé ci l'islam martyr mm-hmm. nit manam l'islam boy xol Omar ibn Khattab dafa martyr Ousmane ibn Affan dafa mart dañ koo rey Ali ibn Abi Talib dañ koo rey ñetti xalifa yonent bi yi gën a siiw ñoom ñett ñëpp dañ leen a rey mm-hmm. nga topp l'islam histoire l'islam kenn par kenn ñi gën a ma rëy ci uzama utar ñëpp dañoo martyr pourquoi ñuy dawal Cheikh Omar ni dafa martyr pourquoi ñu koy dawal dafa martyr ñu ngi koy xaj dara martabatu shahada lañ ko bëgg a xaj ñu ngi wàññi dara jaam même su fekkee dafa naaw dem wallaay mu des ci toolu xare mu ëpp martaba mu ñu ni seey na ñun nag ay karaama doo nga ñu intéressé dafa naaw dem ñu yaakaar loolu mooy karaama mais disparaître mystérieusement li ko gën ëpp daraja bu dee ah. xaw ma loolu la def wala def ko ah. ndax coow li bari na mais li ëpp ca euh, maanaam li yenn borom xam-xam yi wax mooy foofu la des ca montagne même bu dee dañ ko rey même bu dee dafa des ca tool boobu moo ëpp daraja ma gënal mm-hmm. waaw ñëw Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. est-ce que xam nañ dara ci histoire lu mm-hmm. duñ ci wax li am li am sens de tey suñu suñ ñiy taxaw di wax man damay wax ni Pambé nga ki nga xam ne boo dóoree pitaar mu naaw bala fi. mooy taxaw naa sëñ Touba du dara Seydi Hadji du dara. ay bidaakat lañ ay nitu bidaa lañ. ñàkk xam rek. wallaahi. Mhm. kooku di wax. Mhm. xoolal li sëriñ Touba daj. Mhm. ngir lislaam. wallaahi. nañ tàmbeel 1895. biñ koy yóbbu ndar. di ko fa jëlee di ko yóbbu ba Gabon 1895 ba 1902. sept ans yoo xamante ne ni lam daj. ca ca Gabon. est-ce que est-ce que xam nañ ko lu ko ko teg. Mm-hmm. keroog ba mu ba ci biir géej gi. Mm-hmm. dafa taxaw xool gauche xool droit gisul kenn ku dul géej ak tubaab bi. Mm-hmm. mu xam ne tubaab bi du ko doy seede mu daal di biir xalimaan ni faltashhad li albahra mhm. bi kawni abda man yaxfiru danba mhm. wa kawnu xadi kawni xadima almustafa bahru maa yamba mhm. mu ne ko géew géeju maa yamba maa ngi lay seedaloo ni wallahi kenn rek a ma mat buur mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu maa ngi lay seedaloo ni mënuma liggéeyal kenn ku dul sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong ma mat jawri ba mu koy wax moom dong ak tubaab yi ci digg géej mu dem def fa juróom-ñaari at ñëw 1902 ñu naan xañ na day noppalu 1903 tubaab bi jëlati yóbbu Cheikh Sarsara ca Mauritanie 1903 1907 juróomi at yoo xam ci désert Mauritanie ba nekk na ko mm-hmm. ngir yëkkati baatu laa ilaha illallah mm-hmm. tubaab bi gis ni mbir yaa ngi gën a yokk ci gën a doy mm-hmm. mag ñoo xam ne tubaab bi moo leen fi bàyyi waaye jikko yaa ñu fi ba tey ndax am na ci ñu ñu doon wër ni sëñ bi faatu nag faatu lu nekk xibaar xibaar bu ne jógee na xibaar bu nekk mu ñëw andiwaat ko ñu ni de ah xañ na eh, dañ ko bàyyi mu noppul ñu jëlati yóbbu ko ca ceytu fële ca biir jolof ti tëj ko fa juróomi at encore ca ceeyal juróomi at ba 1912. lañ ko jëlee ci yéen mbir may gën a yokk nit ñi gën a fax lislaam bi gën a tasaaroo liggéey bi gën a yaatu ci lañ ko jël andi ko résidence surveillée Diourbel ba 1927. ma ni fanweeri at ak ñaar yoo xam ne nit ki nekkut ak njabootam talu te lekk talu la naan talu te dund lenn lenn luy bànneexu àdduna lenn jaralu ko lu dul yëkkati baatu laa ilaha illa allah taxawal lislaam ba lislaam taxaw tey mais yàlla fayee ko yàlla fayee ko ci adduna bi foo dem fekk fa kër Serigne Touba goo xam ne mm-hmm. daara la kër Serigne Touba goo xam ne jàkka la mm-hmm. kër Serigne Touba goo xam ne dañ fay liggéey maanaam mag ñi loolu lañ fi def mm-hmm. nga ñëw ci Mawlana Seydi Hadji Malick xañ ne moom la ñuy jël ci dernière référence sax ndax mënuñu jël euh, euh, référence yëpp waaw ah, waaw mais waroon nañu dem ci maam Ahmadou Ndaak Seck sama sëriñu euh, maam yooyu war nañu dem ci Cheikh Ibrahima Niass war nañu dem ci waaw ci mag ñu tedd ñu tedd ñoon mais waxtu mooy daw tey Maal Assaf. Seydi Hadj Malick le grand stratège. wallaay ndeysaan. xam nga eh, Seydi Hadj Malick stratège bu mag la woon. wallaahi laa ilaaha illallaah. moom bi mu ñëwee jàkkaarloog tubaab yi xool situation réew mi. xam ni su déclaré jihaad comme ni ko mag ñu waxoon li mu bëgg du ko am. du ko am mm-hmm. ndax jamono jooju xam na ni. sirru jihaad bi ak xekma jihaad ak mayu jihaad demoon na ci Cheikh Omar. Mm-hmm. mission Cheikh Omar la woon. Mm-hmm. comme moom mission am na feneen fu mu ko war a mu ni li muy def mooy topp tubaab bi tubaab bi lay day tabax lu tubaab bi tabax mu toj ko tabax fa leneen mook tubaab bi ca ndar fu tubaab bi taxaw Seydi Hadji Malick si Seydi nag da dul n'importe qui parce que Seydi Hadji Malick maanaam booy xool ci dimension dimension xam-xamam mm. xool ci dimension wilaayaam da ngay gis ni nit la koo xam ne ku extraordinaire. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw waaw maanaam maanaam ah, dama koy wax parfois ne nit plus la. waaw nit extraordinaire. waaw moom nit plus la waaw wax na ko extraordinaire. bismillah parce que parce que boo koy jàngat histoire am da ngay xam ni kii nit ku extraordinaire. parce que fi mu juddoo. Mm-hmm. ni mu juddoo. xam nga Cheikh Omar bi mu ko jox drapeau Tijaniya boobu c'est daal maa ngi juddoogul mi ngi ca or a fondé boobu Cheikh Omar. Euh, gars yi jugee gars yi wàllu di ko ziar si comme ni nga ko jàngatee. maam Fawad Weli yónnee ko sërëm boobu pour mu def ko ziaram mu daal di koy jox la mu koy jox ci yooyu xañ ne dañ ci am amaat occasion bi mu juddoo ak ni mu juddoo juddu comme yonent bi saasam juddoo mm-hmm. parce que moom léppam da koo jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa judd gisul papaam mm-hmm. sidage mal dafa judd fekk waajuram génn àdduna mm-hmm. mu judd jàng lu bu doomu soxna di jàng Seydi Hadji Malick jàng na ko boo demee ci ci ifhaamul munkiril jaani da nga yéemu ci shahadaat yi Seydi Hadji Malick am ci wàllu xam-xam lu doomu soxna di jàng jàng na ko xam lii doomu soxna yi xam yépp ba pare taxaw nag war a woote daawa islaahiya mooy ndaka la ñuy defar ba defar réew mi mu daal di wax benn bayit bu bu gàtt ala bani zaman daawtukum li ixyaai diinin bil ajibu yéen waa Sénégal maa ngi leen di woo yée Maodo ngi woot daw si leen xam maay taal bi lay wër mu ne lan <laughs> day woote pour am mbooloo ndax dafa xew euh, Seydi Hadji Malick maa ngi leen di woote wootewuma leen ngir dajalay taalibe wootewuma leen ngir ku ma liggéeyal wootewuma leen dama leen woo ngir ñu dundalaat l'islam ci réew mi hmm. moo Maodo nu ñuy dundalee l'islam mu ni bil ulumi ku bëgg a dundal l'islam faw nga am xam-xam kon leen ngeen jàng fa ajibu wuy si leen ma moo tax Seydi Hadji Malick mission mooy jàngale ba ni muy génne àdduna mustabaay jàngale hmm. ba ni muy génne àdduna maa ngi ñu dajaloo sox soxna ko waaye yow ñi ngi am doy na pour ñu jàngale tee ngaa noppalu mun hmm. leen eh, la an akula bil sax moom a gën a naan akula bi diin mu yéen a ngi may tegloo jukki bi ci xamoo ni jukki bi ci la lépp nekk. wallaahi alhamdulilahi rabbil alamin oustaz li tax dagguma la ba ba léegi. mais pour daaneel foofu si pour wax la Seydi Hadji Malick ca Ndar. Mm-hmm. zawiyem ba mu taxaw ko ci wetu tubaab bi. Mm-hmm. gaa yi ngi taxawal seen église mu taxawal zawiya topp tubaab bi ca ndar xam ngeen ndar fam fam fa mu tolloon jamono ji doy waar rue André Lebon nga xam ni daanaka tubaab la nekkoon tubaab kese ci quartier résidentiel yi la leen di topp résidentiel la fa la fa la leen di topp nga xam ne tubaab bi heure bu mu nungul kenn ku sieste fa la ñuy naan seen xaq bi la xaqe mm. mënu ci dara la tubaab bi tabaxoon yëpp moo tax ndar foo dem fekk nitu ndar day jàng alquran parce que sérieusement da ko liggéeyoo mm-hmm. moo tax ndar ndar foo ko fekk day jàng bu mu jàngee tubaab noonu lay jàngee alquran ah, ah. mu jógee fa ñu toxal capital bi Dakar. Mm. Seydi Hadji Malick topp leen ci Dakar ñëwal Dakar plateau. Mm. boo fa ñëwee di nga fa fekk. Zawiya Seydi Hadji Malick ci quartier résidentiel yi nga xam ne tubaab yi bëgguñu dara lu leen dee. mu ñëw kenn sañu ko mu ñëw di fi def naasirul xaq bil xaq. Mm-hmm. jàngale. moo tax laqad wa jahada fiha bi siyaasati wan nada wa ilmin wa ilmin fahtada kulla mu'tadi mm-hmm. loolu la ko Cheikh Aline Gueye wax. Mm-hmm. mu jóge fi di gis ne Tiwaawoon. dëkku ceddo la boo xamante ni fa la ceddo ko samp mm-hmm. mbaax mm-hmm. ñu bari dañ yaakaar ni dëkku Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick moomul Tiwaawoon sañcul Tiwaawoon mm-hmm. dafa gis rek mu nekk dëkku ceddo boo xamante ni yaakaar na ni su ko defaree defar Sénégal mu samp fa def tey tiwaawoon na mu def tiwaawoon ba mm-hmm. mbëru làmb yëpp mujjee sopp ku nekk ay liman mag ñi c'est mbokk loolu lañ fi liggéey ah, tiwaawoon kon dafa amoon euh, ay ay kii ay si xamaloon <laughs> euh, ci jublu woon euh, dëgg la dëgg la gàmm amoon na avant Seydi Hadji Malick gi tiwaawoon ndax mm-hmm. la gàmm gi ah. <laughs> gars yi sañ sañan tagal seen i mbaxana fas yéene seen pour pàkkar ci ndax gàmm moo nekkoon daje maanaam jamono Modou Galasso jeex na moo nekkoon gàmm si daañu maa xoolal ci xekk maam uh-huh. soppi gàmm yéen gars yi li ngeen di def ëpp na tey <laughs> gàmm tuddee judd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah yaa imam lay eh, benn man xamul lu ma jaaxal uh-huh. maal asaf uh-huh. jaal waqt wallahi wallahi moom te imam doyaluñ li ñu de li ma daloon ci ci ci ci ci ci imam imam imam imam uh, maa ngi koy nuyu waaw Euh, imaam Niass mhm. moo ñu dal ci moom. Mhm. dalal ci imaam ki ñu mujj ki ma mujj invité. Mhm. ndeysaan bëggee mën nañ ko biisaar ah. waaw kii dañ koy biisaar. non dañ koy biisaar xam nga ah, dafa tàmbali loo xam ne foog mu àgg. parce que mu ngi ci wax Seydil Hadji Malick. wallaay wallaay te dañ ko tënk tënk. te duñ ko te duñ ko tënk moo tax bu ngeen seetloo. invité bu fi jaar. ko dagg di kii mais moom. li tax dagguma ko parce que dama bëgg mu yaatu. mais ma incha allahu taala parce que waxtu wi jeex daanaka jeex na tàkk waxtu naa question waaw ah. mais àjjuma bii di ñëw imaam. nga waaj ko. àggali yaa ngi ci séeréer xaaji Malick. Mhm. àjjuma bii di ñëw ñu àggali mag ñi ci tegu. ba mu jeex tàkk ñu topp ko rek. Mhm. incha allahu taala. waaye euh, di kontaan bu baax sant yàlla di jeexal at mi. macha allah yàlla ñu dugg ci atu 2024 ci mu nekk atum naataange atum sutura ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu di kontaan bu baax ci émission bi mhm. waaye di kontaan comme ni ko Pape Mbaye ngi waxee wax dëgg yàlla di nuyu waa daara yaa ami muy suñu mhm. daara bopp ñi nga xamante ni moom yore fii ci Pikine complexe mhm. islam yaa ami parents d'élèves yeeg ñëpp ngi suivre waa Aynoumane 3 ñu ngi leen di nuyu nag waa jàkka ja di suñu dëkk man ak Pape Mbaye ngi ci Pikine waa Pikine yëpp ñu ngi leen di ziyaara rawatina waa Ridis waa jumaa Ridis di ay soppe am di jàmm ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara wax dëgg yàlla ni ma koy limee léeg-léeg dama koy lim gars yi ni ma waaye sa quartier yi Mhm. Aynu Maan mhm. Lansar Daaru Xuddus Medinatul Munawar xam nga ñeenti quartier yi fu ñu daje jàmm rek dafay am waaw ñu ngi leen di nuyu ba di ziar nag suñu xalifa maam xalifa maam Cheikh Amadou Bamba di bàyyi Cheikh Omar Omar Niang ca Thiénaba mhm. di ziar xalif général Thiénaba Baye Assane Seck xalif général yi nekk ci réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar suñu ustaas bopp ustaas Baba Niang mi xam moo ñu jàngal dimanche rek ñoo yendoo ndeysaan ca Kër di ko nuyu di ko ziar waa Kër Madia waa Kër Ndiaye Sarr yëpp waa Tundu Xaali Omar Fall jërëjëf leen di nuyu di leen ziar vraiment di kontaan bu baax a baax ci émission bi di nuyu suñu yaay daara nag soxna Anta Diop madame Mbaye mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax macha allah jërëjëf imam euh, El Hadj ñu ngi lay gërëm bu baax a baax man ku gën ngir taxulaa bon ngir Mamadou Lamine mooy sama gën Thank you.